waaw asalaamaaleykum waa dogal bii moom mënuñu def lu dul rafetlu ko rek parce que wax dëgg yàlla jamono ji toll nañu fa nga xam ni Sénégal lii la soxla waaw soxlawul ñuy jàpp ay nit nga xam ni euh, seen euh, seen péché bi ñu def mooy def politique su ñu nekkee si état de droit wax dëgg yàlla ku nekk am nga droit fésal sa sa bëgg-bëgg si wàllu politique ak sa jis gis si wàllu politique voilà tegam nag euh, nguur gi ak euh, nga xam ni ki nekk si kawam mooy le président Macky ñoom ñoo dem ba reconnaître effectivement ñii jàpp yu leen jàppoon wax dëgg yàlla amul lenn lu ko lal ba ñu bàyyi lan loolu dañu koy rafetlu te di ñaan euh, le président de la république ak ak ñi ko wër vraiment ñu continuer si lancé bi parce que lii rek moom mooy jàmmu Sénégal voilà Sénégal n'a pas besoin de de de de violence parce que effectivement dañu nekk si situation bu xaw a doy voilà te loolu dañoo soxla quand même voilà comme ni ñu ko waxee rek ñoom nañu continuer voilà nañu continuer sur sur sur cette lancée sur cette voie pour pacifier l'espace public et puis wax dëgg yàlla nit ñi delluwaat seen kër yi et puis ñu respecter la constitution voilà comme niñ ko waxee rek si wàllu élection respecter le calendrier électoral voilà Sénégal yi organiser ay yi apaisées après wax dëgg yàlla ñu jublu waat si liggéey bi quoi parce que Sénégal wax dëgg yàlla jàmm la soxla te képp lépp luy andi jàmm rek si réew mi wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu te di ñaax aussi euh, nguur gi fi nekk mu bàyyi ñëpp sans exception y compris euh, ndayi mbi liggéey mooy le président Ousmane Sonko ak euh, le président Diomaye bassiru Diomaye Faye